mbokki jullit yi gannaaw bi ñu santee borom bi tabaraka wa taala julli ci yonentam bi suñu sang bi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi dénk suñu bopp di leen dénk ñun ñëpp ñu ànd góor góorlu ci lépp lu ñu mën a dolli ragal yàlla bu loolu jàllee waxoon nañ ne incha allahu jamono yi yëpp dañu jéem fàttalante ak jullit yi ci mbirum aj ndax dañoo nekk ci weeru aj te am na jullit yu bëri yu am aj yi su ko defee ñooñu yàlla na leen yàlla àggaleel seen yéene jooju ñu ajeeg jàmm ñibbiseek jàmm te yàlla nangu aj gi eh, xutba tey bii mu ngi aju ci ponki aj yi ndax aj dafa am ponk aj daa am ay ponk ponk nag buñ ko waxee mooy loo xam ne foog nga def ko wala aj gi yàqu dara mënu ko remplacer tur du ko dara du ko rafa kenn du ko dabaatal ponki aj mooy yi nga xam ne soo ko bàyyee déwénati rek déwénati rek mu nekk ñeenti ponk ponk yooyu bi ci njëkk mooy armal armal mooy yéeney aj ñaareel bi mooy tawaaf bi ñuy tuddee tawaaful ifaada te mooy wër gi ñuy wër kaaba gi bisu tabaski ak ñaar bisu ci topp ak daw safa ak marwa ponk la ci aj ak taxaw araf kon armal ponk la caaj deret mënu koo jàng kenn du ko dabaatal tawaaful ifaada boo ko defut ren déwén rek daw Safa ak Marwa ponk la caaj ak taxaw Arafa al ruknul awal al ihram wa huwa niyatu wa mahalluha al qalb ñeenti ponk yooyu bi ci jiitu mooy armal armal mooy yéene aj ci ci xol lañ koy defe xol mooy yéene الوقت الجائز للإحرام بالحج من غير كراهة يمتد من أول ليلة من شوال إلى أن يبقى من الوقت مقدار الوقوف بعرفة قبل الفجر ليلة النحر kañ la armal di jot armal mi ngi tàmbali ci guddi gi njëkk ci korité guddi gi njëkk ci korité bu ñu nee suba la wu korité suba la ñuy wari guddi googu ci la armal tàmbalee man ngaa armal xaar aj loolu day continuer ba mu des taxaw arafa des temps bi des temps boo xam ne soo ci nekkul arafa kenn du jàpp ne taxaw nga arafa te mooy lu mu néew néew benn waxtu boo xam ne danga ko def arafa lu jiitu fajar taxaw ci bisu tabaski lu jiitu fajaru bisu tabaski temps bi ngay taxaw arafa temps boobu ba ba foofu mooy heure armal armal kon mat na daanaka ñaari weer ak lu teg mat na ñaari weer ak lu teg donc waxtu armal fi mu ne nii kum neex nga armal wal afdalu li ahli makkata al ihraamu min awali dil xijja ala al mu'tamad wax naa ne fàttali bii mi ngi amee ci ngirum imam malik ndax ngirum imam malik ñi ëpp ci sénégal yi moom lañ ci la ñuy jaamoo yàlla moo tax ñu préféré wax ni imaam Malik wala li ngirum Malik gisee aj kon ki dëkk Makka ki dëkk Makka dañoo bëgg mu xaar ba tabaski teru mu door a mu door a armal tabaski bu teroo mu door loolu moo gën ci al li ëpp ci gër wa qabla yawmi tarwiyati ak mu def ko nag jiitu bis bi ñuy dem Muna pour continuer Arafa kon ki dëkk Makka heure bi mu war a armal mooy mu xaar ba weeru tabaski teru te mu armal lu jiitu yow mu tarbiya lu jiitu muy dem Muna waaye wa ida wa in waqaa al inaqada wa sax wa wa yukrahu al ihraamu qabla shawal sib nañ ko armal lu jiitu korite sib nañ ko armal aj lu jiitu weeru korite teru waaye ku ko def sa aj baax na ku ko def def nga luñ sib bàyyi sa aj baax na loolu mooy waxtu wi wi ñu war a armal mu des fi ñu armalee makaanul ixraami binnisbati lil muqimina bi makkata mutawattinina biha am laa wa lil muqimina xaarijaha ka muna wa musdalifa in lam yuxrimu bilqiraan huwa makka huwa makka wa yundabu laha al ixraamu fi lmasjid alxaraam fan lañuy ñuy armale ki dëkk mag moo xam ka fa dëkk la walla ka fa gane si aj fekk ko fa moo xam ka fa dëkk la wala ka fa gane aj fekk ko fa te génnul xaram bi génnul xaram bi walla boog mu nekk diggante xaram bi ak musdalifa ak munaa kooku su fekkee armalul xiraan armalu xiraan bu fekkee aj bi muy aj aju xiraan xiraan mooy aj goo xam ne da ngay da ngay yéene ñaar yi dangay ngay yéene aj ak umra mais aj gi mooy jiitu umra bi waaw wala boog aj bi boo defee umra doo doo doo summi sa aj umra bi mooy jiitu aj bi mais day jokkoog moom saa à boo defee xiraan ku demoon makk tey tey def xiraan soo demee da ngay orm euh, da ngay yéene aj ak umra mais omra bi mooy jiitu aj gi nga def omra ba pare téye sa yére ba ba ba aj gi jeex bokk ak ifraat dañ ñëw ci ifraat yi kon su fekkee defuloo xiraan makka mooy sa paraasu armalukaay wa yundab laal ihraamu fii masjidil haram liñ gë liñ sopp nag mooy nga armale ci biir jàkk je fi ngay jullee fi ngay jullee jarul ngay dem ba ca Kaaba ga wala ngay seet beneen place comme yaa ngi ci biir jàkk ji rek mën ngaa arab waaw wa laysa alayhim ay yuqimu min masallahum kenn jarul ngay déplace fi nga doon julli rek mën ngaa arbale foofu wala an yataqaddamu ila jihatil bayti jarul nga naan damay dem ba ci kaaba ga comme yaa ngi ci biir jàkk ji rek mën ngaa armal waaye wa yundabu lil afaaqi al muqimu bi makkata in kaana maahu saa waqtun ay yaxruja li miqaatihi li yuxrim biha ki nga xam ne dëkkul makka waaye aj gi da ko fekk mag te um armalul bi muy ñëw mag da ko faa fekk su bëggee armal comme dëkkul mag li gën mooy mu dellu fa mu waroon a armale bu bu ñëwuloon mag mu armale fa door a ñëwaat biir mag loolu moo gën ci moom waaye nag su ko deful tam su su aj armalee ci biir fa in lam yaxruj fa laa shay alay bu génnulaatul dellu ci miqaam armale du tee ajam baax na wa makaanu l ihrami lil bil qiraan huwa al xillu ay ma jawaza al xaram kii def qiraan nag moom ci xel lay armale xel mooy nga génn aram bi xorom bi da ngay génn xurub bi foofu moo tudd al xel foofu ki nga xam ne qiraan lay def foofu lay armale su fekkee makka la dëkk su fekkee makka la dëkk wala aj gi fekk ko makka waaye wa makaanu l ihrami li gayri al muqimina bi makkata wa ma fi xukmiha yaxtalif bi ixtilaafi al jihaati waxuwa ki nga xam ne dëkkul màkka wala aj gi fekk ko màkka kooku moom ci mii yii lay armale yant bi dafa tudd ay béréb yoo xam ne ku dëkkul màkka wala aj gi fekku la makka boo demee di aji boo àggee foofa ci ngay armale am na fi ñuy tuddee zul xulayfa zul xulayfa li ahli almadinati wa min waraihim min man yatuuna ala almadina ñi jóge medinatu munawara Zul Xilayfa la ñuy la ñuy armale moom la ñu tuddee biiru àll ak képp ku aji njëkk Medina sénégalais yi ñu bëri foofu la ñuy armale ndax dañuy njëkk Medine bu njëkkee Medina ñoog waa Medine ñooy bokk fu ñu armale moo Zul Xulayfa ñu koy wax biiru àll am na béréb bu ñu am na armalukaay bu ñuy tuddee Juhfa li ahli Shaami wa ahli Masr wa min waraahum mimman yatuuna ala Shaam aw Masr égyptien yeeg syriens yi ñi ngi arfale ñi ngi armale ci béréb bu ñuy tuddee jox fa ak képp ku leen féete gannaaw képp koo xam ne booy dem màkk Égypte ngay jaar wala nga jaar Syrie yaa ngi armale ci béréb bu ñu tuddee al jox fa marocain yi ak soudanais yi bu la neexee ngeen ak sénégalais yi sax maliens yi nigériens yi ñoom ñëpp ñoom ñëpp mën nañoo ka alil euh, ngeen bal ma ñoom ñëpp ci jox fa bii nga xam ne mooy li ahli Cham ñoom ak marocain yeeg égyptien yeeg sénégalais yeeg soudanais yëpp ci jox fa boobu la ñuy armele suñ jaare jiwul Médine suñ jaare ji Médine waaw qarn qarnul manazil li ahli najdin li ajdi najd al yaman wa najd al hijaz wa min waraihim mimman yamruuna bi manazilihim xarnul manazil beneen place armalukaay la boo xam ne waa Najd waa Yaman ak waa Xijaas ñeneen beneen côté Makka bi ñoom ñooy armale foofu yalam lam place armalukaay la li ahli Yaman ba tey waa Yaman wa min waraahim ak ji féete gannaaw Yaman ak Inde Zaatu Yaraq moom itam beneen place armalukaay la waaye boobu li ahli Iraq waaye Iraq ñoo fay armale ak ñi ne féete gannaaw comme Perse yi ودليل هذه المواقد أيها الإخوة المكانية حديث عبد الله بن عمرو ولا حديث عبد الله ابن عمر قال أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أهل المدينة أن يهلوا بذي الحليفة وأهل الشاب بالجحفة وأهل نجد بالقرب mu ne abdullah ibnu omar nee na yonent bi daa digal waa Medina ñuy armale ci zul xulayfa digal waa Cham ñuy armale Juhfa digal waa yaman ak waa naj ñuy arfal armale ci Qarn amma haula thalaasa fa samituhunna min rasulillahi nee na ñetti béréb yi moom maa leen déggal sama bopp ci yont bi yont bi moo wax ma dégg donc armalukaay yi moom maa dégg yont bi mu wax ne foofu la kuréel bu nekk ci kuréel yi mu tudd di armale wa uxbirtu léegi li ma dégg wax naa ko léegi li li ma fekk yonti wax ko wax naa ko léegi ma wax leen li ma dégg wa uxbirtu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal wa yuxil wa yuhillu ahlul yamani min yalamlam mu ne wax nañ ko ne yont bi nee na waa yaman yalamlam la ñuy armale boobu nag axrajahu malik fi lxajji wal buxaari buxaari nettali na xadis bi imaam malik nettali na ko imaam muslim nettali na ko xadis soxna Aïcha nee na anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam waqata li ahli al iraqi daatu iraq soxna Aïcha nee na yonent bi nee na waa iraq nañu armale ci ci iraq hadis boobu Abu Daawuda bind na ko Nasaay bind na ko wa man marra bi gayri hadihi almawaqit almakaniya ahrama xaysu hada almawaqit hada almiqat wa kadalika yafalu wa kadalika yafalu saafir baxran aw jawwan léegi nag képp ku duggee makka te jaaruloo ci béréb yi mu wax nii na nga boo ci tolloog benn nanga armal soo ci tolloo mooy ñi ab ñi voyagé ci yi wala ci bato yi ñooñu bu ñu tolloo miqaat bi ñu war a armal dañ leen koy wax dañ wax ne ñu ngi tolloo miqaat sàngam wala tiim nañ miqaat sangam su boobaa ku nekk ci avion bi jog def armal boobu kon ñooñu dañ leen di tegtal ne yéen a ngi dend ak miiqa bi jóg leen ngeen armal ñu dem armal ayuha al ixwa wa man kaana maskanuhu bayna al miiqaati wa makkata fa inna makaana ixraamihi huwa maskanu illa ida kaana al maskan xaarij al xaram aw kaana fi al xaram aw farada al xaj fa in qarada xaraja ila al xilli waa ahraba minhu in kaana maahu saatun wa waqt léegi nag koo xam ne fi nga dëkk dafa nekk diggante miixay ak makka ki nga xam ne fi mu dëkk dafa nekk ci diggante miixay ak makka kooku këram lay armale ci këram lay armale lu dul mu génne xaram bi mu génne xaram bi wala mu armal ifraat walla mu def xiraan bu defee xiraan xill lay dem waxoon nañ ko kuy armal qiraan xel ngay dem wa ahraba minhu in kaana maahu saatun wa waxtu su fekkee am na temps bi su amul temps bi nag mu armalee ci këram aqulu qawli hada wa astaghfirullah alhamdulillah wa salaamun ala ibadihi alladina astafa alayhim wa ala imamihim wa afdalihim sayyidi wa habibi abil qaasimi muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi almuhtadin ayyuha almu'minuun wa lil ihraami waajibaatun wa hiya al af'aal allati yajib ala almuhrimi al ityaanu biha fa in tarakaha laa yafsud ihraamu bal tujbaru bi dami léegi armal dafa am ay ponk armal bi dañ ci dellusiwaat beneen yoon duñ jeex mënuñ ko jeexal tey armal bi ndax mooy yéene aj armal daa am ay ponk ponk yi nuróow daa am ay waaju ay waajibaat ay war-war ay farata mën nga ko tuddee ay farata ngi tuddee ko farata mën nga tuddee farata armal dafa am ay farata farata yi moom soo ko bàyyee armal bi du yàqu mais danga koy jàng da koy defar mooy ni ñuy defaree julli julli daf caa am loo xam ne soo ko bàyyee kenn du ko defar da koy indiwaat rek am loo xam ne soo ko bàyyee mën nga koo defar du jar nga koy indiwaat aj ji daf ci am loo xam ne soo ko bàyyee kenn du ko defar da nga koy indiwaat rek da xaar ba déwén am ci loo xam ne boo ko bàyyee da nga koy defar armal ci boppam ku ko bàyyi ci aj sa aj yàqu na waaye biir armal bi am na ay farata farata yooyu nag mën nañ koo defaraat farata yooyu ba ci njëkk mooy al ihraamu min al miqaati al makaani mooy nga armale fu miiqa am nga armale ci miiq wax nañ ko loolu mooy importance ñu waxoon miixa yi yan miixa la ak gox bu ne ci ban miixa lay armale ak kii dëkk Màkka fu muy armale donc xam béréb bi ngay armale nga armale fa loolu farata la farata la fa inta taaddaahu bila ihram wajaba alayhi an yarja ilay soo rombee fi nga waroon a armale ba paase ko da ngay delluwaat gannaaw ba armal da ngay delluwaat gannaaw ba foofa nga armal léegi dara waru ci doo ci def dara doo defati dara su fekkee danga passé fi nga waroon a armale waaye armale nga fàttali ko dellul fa nga war a armale nga armale dara waru ci wa dalika ma lam mooy fekk armale goo waaye fa in taaddaahu bila ihramin summa ahram lam yalzimu rujuu wa alayhi soo passé fi nga waroon a armale dem armal foo wartoon armale soo ko yëgee jarul ngay dellusi si da ngay continuer mais da ngay tuur deret da ngay mais da ngay tuur deret waaye wa man ahrama qabla miqaatil makaan faala fa faala makruhan képp koo xam ne armal nga lu jiitu fi nga waroon a armale def nga luñ sip def nga luñ sip mais armal bi baax na def nga lu sip waaye armal bi baax na soo armalewul fi nga waroon a armale su fekkee armale goo da ngay dellu armal dara waru su fekkee armal nga ba pare jarul ngay dellu dangay ngay tuur deret boo delluwaatee itam da nga tuur deret ah. soo rombee fi nga waroon a armale ba pare armal armale feneen boo delluwaatee fa nga waroon a armale du tee da nga tuur deret moo tax jarul ngay dellu tuural deret rek kon loolu mooy ponk bu njëkk bi ci armal ji ñaareel ponk bi mooy tajarudu zakari min al maxiiti wal muxiiti góor du sol lu ñaw du sol lu ko ëmb loo xam ne da ko wër côté yëpp day làmbaayu day taraxlaayu làmbaayu kon du sol yëre du ñaw du sol tubéy du kaalawu du sol yére bu ñaw du sol dàll yu fermé du sol tubéy du kaalaw waaw mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj nañ ko nan la ñuy armale mu ne laa talbisul xumusa bu leen sol ay yére yu ñaw wala al amaima bu leen kaalu kaala wala sarawira bu leen sol tubéy wala talbisoo min athiyaabi cheyan massahu azzaafraan buleen laal lu am parfon bu leen laal lu am gët parfon wala cuuraay imaam Malik bind na ko imaam Buxaari bind na ko imaam Muslim bind na ko waaye wal maratu moom laa tajibu alayha atajarrud min al maxyid soxna yi moom kenn sasu leen ñu bañ a sol lu ñaw ñoom buleen neexee ñu sol lu ñu ñaw ndax ñoom seen yaram lépp awra la moo tax suñu solu luy ñaw seen awra wuñeeku day yomb ci ñoom moo tax charia may leen ñu sol luñ ñaw waaye nag du ñu takk niqaab du ñu takk du sol ay kawas ak soset ay kawas ak ay gant du ñu sol gant nga déggee ci ñu bëri ci fuqaha yi léeg dañuy wax ne loolu moo tax ñu gëm ne niqaab bokkul ci collu lislaam c'est-à-dire du farata ku ko def def nga lu dagan niqaab bokkul ak muuraay muuraay bi mooy nga muur sa yaram ba mu des sa xar kanam bi niqaab mooy morse boobu ngay teg sa kanam ba sa bët yi doo nga des si am na ay mbokk yu koy def loolu kenn du ko def mag kenn ku armal doo ko def waaw loo ciy déggee mooy jigéen ji buy armal dafa war a yem képp ci ni ko lislaam waxee noonu la war a soloo waru coo doolu yëfu boppam nga dégg ci kon niqaab bi sa yëfu bopp la woon xam nga sol mbaxana kum neex def ko kum neex def mbakk kenn ko fa def moo tax góor gi buy làmbaayu day làmbaayoo yem képp ci li ko li ko lislaam sas léegi yeneen aada yi mu amoon ci dolli ci leneen moom la concerné na xaar ba dem këram def ko loolu mën nga koo dégg kon ci sax ci góor gi dégg ko ci jigéen kon ba niqaab bokkul ci colu lislaam bokk ci xaraamul nag kum neex def ko ku neex sol mbaxana góor gu neex sol mbaxana laa fa nga so sol tengaa de waaye du farata donc loolu mën nañ su ko déggee kon ci masala boobu kay jigéen ñi dañ leen di aaye ñu takk niqaab bu ñu armale walla ñu takk ay ay gants imaam Buxaari bind na ko naaj ñetteelu farata ji ci armal mooy at talbiyatu mooy ngay wax labbayk allahumma labbayk labbayka sharika laka labbayk inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk laa sharika lak noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan labbayk woo allati rawaaha al imaam Malik an Naafi' an Ibn Omar imaam Malik nee na yonent bi da daan def da daan jàng labbayka eh, loolu eh, Anas Naafi' moo ko jëlee ci Ibn Omar wa hiya waajibatun fi al madhabi al maliki wax labbayka farata ci ngirum imam malik farata ci ki armel yalzamu bi tarkiha aw tarki itisaaliha bil ihrami maa damun képp koo xam ne defuloo labbayka wala nga armal ba mu yàgg door a labbay ko da ci ngirum malik képp koo xam ne dangaa armal tàmbali wax labbayk wala nga armal lu yàgg door ko def da nga tur deret wa yustahabu rafu sawti biha illa li nisaay dañoo bëgg itam nga koy wax ci kaw ca kaw a kaw ba mu des jigéen ñi jigéen ñoom may nañ leen ñu wax ko nag xadis bi Zayd ibn Xaalid moo ne bi nee na jaani jibrilu alayhi salaam fa qaal mur asxaabak mur asxaabaka fal yarfau aswaatahu bi nee na jibril moo ñëw ne ma waxal sa taalibe sa njaboot gi ne leen nañuy wax ca kaw àllaakubar talbiya bi nañuy talbiya ca kaw xadis boobu imaam ibnu maaja bind na ko ne wér na ahmad bind ko xusaama hakim ñoom ñëpp ne nañ xadis bi wér la yàlla nañ yàlla yombalal aj ji ñu am yéene aj même bu ñu ko jëkkoogul yàlla na leen yàlla bette xéewal yi ñu mën a aji aj am na solo ci jullit bi aj lu am solo ci jullit la am na ñu dund ba faatu yàlla xañ leen ko kon ku ko yàlla xéewale nga dem fa warloo ko foye war ngaa def li nga mën lépp ba aj li nga war a aje ndax occasion la boo xam ne li muy répété wu bëriwul kon képp ku am yéene aji yàlla na la ko yàlla yombalal ndax aj day dolli gëm yàlla sikki nekkul ci ne bépp jullit bu am paas am wér dem makk di dox biir makka ba ne dajj ci kaaba gi sikki nekkul ci ne gëm yàlla am dana yokk foofa ku fa dem xool li xew danga xam ne lii kuy lijjanti indiwu ko fi loolu loolu xel mënu koo ñaawee xel mënu te ñaawee waxuma sax dem mag waaye kuy xool télé yi rek di gis ni aj giy doxe danga xam ne lii du lu ñuy lijjanti waaw lii kilifaa ko digle mooy borom bi tabaaraka wa kon aj day yokk gëm yàlla day yokk gëm yàlla yàlla na ko yàlla yombalal ñëpp waaye ñu bañ koo def aju aada aju aada nag moom mooy aji pour mottali personnalité ñu bari ci ñun loolu la leen yàlla nattoo dañuy aji pour mat pour seen personnalité mat moo tax koo ci waxul alaaji mu mer ndax daa aji woon pour ñu wax ko alaaji te yow nangoo ko wax alaaji day daal di mer xam nga ñàkk a wax nit alaaji bu doon yàq aj kon doon kon mu métti lool waaye heureusement du yàq aj euh, heureusement ñu ñàkk laa wax alaaji du yàq aj ndax yow tudd loo alaaji alaaji kii ajee ko tudd yow ak ñibbi nga tudd añib bi comme nag añib bi dafa diis kon lu ñu la wooyee baax na kon yal na yàlla yombalal ñëpp aj te yàlla nañ aji te yàlla tax waaw yàlla nañ aji te yàlla tax ndax doomu aadama lu mu def te yàlla taxut moomu ko aqulu qawli hada wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa